seen application Wanel TV agsi na ci Google Play ma ngeen ko télécharger léegi léegi. ñun nag dañuy def politique yàgg koo def lool jamonoy sëñ Abdou Lahad fekk ñu fi ci teewul ñu sàmm ndigalu sëñ Touba jamonoy sëñ Abdou fekk ñu fi ci teewul sàmm ndigalu sëñ Touba sëriñ Sariwun fekk fi ci teewul sàmm ndigalu sëñ Touba sëriñ sëñ Touba yi sëñ El Hadj Baare sëñ Sidi Makhtar teewul ñu sàmm ndigalu sëriñ Touba. ndax Serigne Saliou moo jàkkaarloog sëñ Baara woo ko ba mu ñëw bis ban attaqué mitin ba nekkoon ci gaaraasu Dakar ancien gaaraasu Dakar ba bi sëñ Mawndo Jaxate bàyyi PDS mu ne dëkk bi yéen ci war a jiitu ci ñi koy defaral xel kafe jox ñu sëñ Baara Cheikh Dione ma nga këru dëgg ak man mu xel kafe jox ñu ni yéen a war a jiitu ci wormaal dëkk bi ndax dañ leen di tudd tudd sëñ Tuubaa ma gis ni fii situation yi sëriñ mun Mountakha lim liggéey ci yoon wi ak mat gi mat Serigne Touba. ca mu leer na ne am na mbokk yoo xam ne tey ñoo nekk ci ginnaaw lii lépp ndax tey man bu ma gisee ñu naan sëti sëñ Tuubaa direct ak indirect yooyu intéressé ma waaye li ma ci gën a intéressé mooy tey nit bu waree dem ba war a moom ab dëkk li mu war a jiital mooy sëñ Tuubaa lu mu war mooy lu aar dëkk bi waaye du ko génn du dugg ci politique ndax ku fa dugg ci politique da nga jàkkaarloog sëñ Modou Bara Dolly mi nga xam ne politique lay def ci wàllu politique bu solee casquette bi a doon boo waxee ci politique tontu la ma bëgg ki war a dem ba war a moom ab dëkk ji nga xam ne ëllëg war nga ko moom lii ñuy def sëñ Muntaxa ànd koo ki gone di ko def sëñ Muntaxa tey ku ko dëkk bi bu ko defee du la neex ko defee du la neex ndax ñii fi ne di yëngatu ñëpp ak di weddi ndigalu sëñ bi boo ko toppatoo ñu war a moom dëkk bi ñoo nekk ci gannaaw di yëkkati ay kàddu ñu leen di séentu ci loo xam ne nii lu war a défendre dëkk bi la ak lu war a saxal euh, li nga xam ne mooy ndigalu sëriñ bi waaye ñu ngi ci lu Macky Sall am Macky Sall indi ba naan ay 28 personnes ana yan 28 personnes ñun ban ndéglu leen war a déglu fii fii kan moo fi dem wàllu yu fi dem ci yàlla ak di dem ñëw ah ñun ñëpp xamante nañ ci dëkk bi Serigne Modou Bara Dolly nag li muy wax ci kaw la koy wax ñëpp di ko dégg. am nañu yii ñuy def ci dëkk bii di manifester di yàq alali jàmburu weddi ndigalu sëriñ bi bu ko sëñ Modou Bara Dolly defoon mi ànd ak Macky Sall tey ñoom ñii ñëpp di wax ay 28 personnes ak leneen génn nañ tey naan am sëñ Modou Bara Dolly indi sëñ Modou Bara Dolly di leeral na it barki de bu fii lan yenn ci ay tuuba teg ma ko ci ay mbokk teg ma ko ci ay mbokk ñoo doon wax naan waa état bi yónni leen nan dem këram nan dem këram ñu yebal 14 personnes waa dikk sama kër yebal ko sama biir kër ca la ñuy wax dara du ci dëgg la ñuy wax dara du ci dëgg ndax ku ma fi gënu gënoo ma ci dëkk bi kenn gënu maa jege sañ tubaab loolu ba mu amee tey ki dëkk bi ñu gis ay gore di manifesté wu di yàq alal ja weddi ndigalu sëriñ bi doo dégg ku jeg wax ci lu dul am indi mag Macky Sall euh, euh, rapport élection yi nangama nangam dunu lu ñu ndigalu sëriñ bi ci boo seetloo gone yooyu yëpp ay mbokk nekk ci seen gannaaw ñu war a moom dëkk bi ma ne nan arrêté man sëñ moo du Bara Dolly képp ku ci wàcc ci terrain wax ci politique position ba ma nekkee damay jàkkaarloo yow boo ma wooyee ci wàllu sëñ bi nag bu boobaa boo ma gënee gëm sëñ bi ma gë ma ma fas yéene laa dab toppali ci yow di daw guddi ak bëccëg xam ne sëñ moom mu moo gënal lu man di doon waaye boo duggee ci leen ma joxale ci fii président jox na fi ay ndimbal ku ne lam leen defal man mi ànd ak moom def lu ma ko defal na fi nit ay forage defal na fi nit mu gagné ay procès ay hôpital ay milliards defal na fi ay nit ay ay lu ne defal na ko fi ay nit ci dëkk bii ma ma nekk muy Touba guddi ak bëccëg nit xew la na mu jàppale la ci say tool mu jàppale la ci tey ñu naan euh, desee na fi neuf mois ku ne génn di yëkkati sa kàddu di wax ci président mooy ki gën a teral ay sëriñ ci mboolem gouvernement bu fi jaar ñii di wax ci rapport élection rapport élection rapport euh, euh, élection amoon na fi Senghor defoon na ko fi njëkku fi ci tey président soxlawut bu doon soxla am na droit nekk candidature ci élection de yi ñu nekk 2024 waaye pour bëgg stabilité réew mi bëgg lépp tegu ci aw yoon moo tax mu ronoo ku ko ngir bëgg a jàmm réew mi ñàkk nekk ci jàmm Karim Wade waa PDS lan ñeneen ñi nga xam ne tamit tey dem nañ ci bureau président wax d'accord ci ñu dàq élection yi ñu génnaat nekk fii di wax ci koo ci gis ci opposant bi mi ngi def root rootum guddi ay rooti guddi la ñuy def ba pare bu ñu wàññi koo ñëwaat génnaat lan waxoon ci biir duñ bokk leen wax ci biti ba kañ réew mi ñu jàpp ne dañ koy foyee ca doo dégg ne euh, opposant bi damm na fii wala gaañ nañ ko fii doo dégg ne doomi opposant bi gaañ ko fii wala damm na fii ñoom ñëpp rawale nañ seen i doom ca bu tàngee ñu daw ñu génnee doomi jàmbur ñu ne ci dëkk bi ñu leen di dóor ay ci ma ne bu defut attention ba réew mi dugg ci loxo yi euh, beneen pouvoir li xew ci sous reson bi xew ci réew mi bu boobaa dans cinq ans duñ wax demee ay élection ki ku fi génn waxuñu ay grenade ay métrage la lay teg ndax réew yi mu dabal oh, yeneen pouvoir yi jël ko ah eh, militaire yi jël ko tey kenn du yëkkati kàddu di wax ay élection wala leneen pourtant seeni réew la ñu ngi ci toog pour tubaab yi ànduñu ci tubaab yi ànduñu ci américains yi ànduñu ci teewul ñu ngi yor seenum réew bu mu waxee ñu naan eh, eh, au niveau international Amérique wax naa France la seen président mais attends France mi ngi ay problème ci biir réewam ñuy manifester wu ay bal di tàkk ca mënu ci dara. waaw léegi nit ñi bu leen neexee bu Macky Sall jegee France wax ak ñoom ngir benn intérêt Sénégal ñu ne tubaab yi ñoo ñu yirif bu Macky sàll wañu ko tee défendre ngir intérêt réew mi nit ñi génn na France wax na nangam Amérique wax na nangam réew mi di Sénégal kenn di Macky sàll la ma koy wax bu mu déglu France bu mu déglu Amérique lii mu jël ngir intérêt réew mi tax mu renoncé candidature am wañu ko moom ci jëmmi boppam ah bañ bëgg réew mi nekk ci jàmm mu ne nan dem fii 9 mois. mu ñu yokk ko ci pour ñun ñëpp ñu jàkkaarloo ñëpp bokk Karim bokk Sonko mën a mën naa bokk ku ne mën a bokk ci réew mi mais lépp réew mi nekk ci jàmm mais ci tey dialogue bi ñu ubbi buñ ko ubbee ba déggoo ci Sénégal nekk ci jàmm mu jël réew mi jox ko ka Sénégal yi wóolu moom dem am jàmm ñun ñu am jàmm li ma koy wax nag lii mu ne bu ci kenn tax mu mën a arrière parce que mooy li dëgg ca mooy njariñu Sénégal waxoon naa ko ko nag biir këram. na ko na nga fexe ba yorum wutum réew moo gën a jafe yor ko gën koo jafe encore waaye bàyyi ci am réew dem ci jàmm am jàmm nit ñi am jàmm moo ko gën a jafe foofu la toll bu kenn xoqatal bu ko benn opposant dal tey bu ma déggee ñu naan ay professeur yu génne ay élèves ay syndicat bëgg gone yi rayant ñu rey leen ci mbedd yi ci seen doom bokku ci est-ce que loolu dëgg la wala yoon la lan mooy ab étudiant ci ay rapport ay élection lan mooy étudiant ci génn di di di nekk ci kaw télé bi parce que noo rapporté ay élection am am na ci ñoo xam ne mutu ñoo wate ji sax ah mais kon ban réew la nekk réew mi du nangu ñu déstabiliser ko du nangu réew mi ñu déstabiliser ko ci ay caaxaan président yaay seul comptable de ce pays bu fekkee ne lii ñuy def jàll na réew mi ñu déstabiliser ko bu babaa yow la nit ñi di demandé kon nag li may wax côté bi ñu féete nan gën a nekk unité nekk benn côté bi ma féete nan gën a jàppante ay loxo waa benn Bokk Yaakaar gën leen a jàppante ay ay loxo yéen kilifa yi nga xam ne tamit ay sëriñ ngeen ca dëgg nekkal fi dëgg tàll naa ñépp loxo nit ki nag li muy def ba tey am réew ba mu nekk ci jàmm lu mu ko lu mu jaral ki nga xam ne bëgg na koo yàq yow mi ko yor war na laa mën a jaral lu mu ko jaral war na la ko mën a jaral maa ngi félicité armée bi bu baax a baax maa ngi félicité police bi félicité général Moussa Fall parce que seen liggéey ñi ngi koy def ni nga ko war a defee mais nag attention attention attention ci lii ma wax attention ñetti yoon fan jëm bu boobaa yéen ñii di doon opposant bi taxaw fii di yuuxu da ngeen toog 5 yoo xam ne kenn du ci ubbi gi mu ñëw loolu nag wax la wax bu ma wax la li may wax nag traître yi nga xam ne ñu ngi ci suñ biir nekk ay traître gamuñu dara que ñoom danoo nekk contable ci li nga xam ne moom la Macky Sall liggéey ndax ñoo ànd ak moom ba pendant 12 ans poste bu ne ñu occupé ko ci réew mi tey bu ma gisee ñuy daw di ànd ak ay opposants yuy saaga président Macky Sall ñu koy fekk ma xam ne ana gor ana gor ana dignité tey koo xam ne 12 ans ànd nga ak moom poste bu ne mu def la ci keree la ba nga taxaw tey nga dem taxaw ànd ak ay nit ñuy saaga Macky Sall ngay deg sa kanam nga ne da ngay mars mais Sénégal yi ana ñu xanaa waroon am lu gëm Macky Sall li mu fi liggéey ay nit la ko àndaloon ay ministre occupé yeneen poste ay premier ministre ay directeur tey yi ki tey ñu wàññi ko di xas Macky ak lu ne ñu koy yàkk ñoom ñu bëgg cay raaxaloo di dem man sama ngor mayuma loolu que Sénégal yi it waruñoo accepter en même temps loolu parce que képp ku ànd ak Macky lu mu ko daal rek ñoo ñuy ñu ànd ak yéen di wax ñoom lañ daal mais opposant bi ànduñu man danaa ànd am comptable ne lii baaxul lii baaxul lii baaxul ña ci àndoon dem ba ñu jeex ñuy roppi ku mën a ne ànd ak ñoom pour am doole naan baax na kon kenn gëmu ci li mu wax ñëpp ay naafeq lan naafeq yooyu ñu nekk nag. laa bëgg leeral ñun ba keroog Macky Sall di joxe nguur gi dama koy soutenir dama koy jàppale damay engagé ci kaw tem bu amoon kenn ku ci des man daa Modou Bara Dolly lay doon parce que ci gëm-gëm ci lay dox Sénégal nag am na fu mu toll lépp lu mën am jàmm ñu ko gënal waaye jàmm dafa am nu koy wutee nit du jëg ngir destabilit am réew ngay ànd ak moom naan jàmm jàmm jàmm jàmm. ma ne on arrête nag li may mettre en garde ministre de l'intérieur di ko mettre en garde gendarmerie nationale tojoon nañ fi samay permanence ma dem ci yoon mujjut fenn fenn la mujjut gisuma kenn ku ma ci jàppale maa jëndaat samay bagage defaraat defaraat ko jëlaat samay permanence du pouvoir du keneen kenn waxuma mat sa mat sa mat sa bi gën a néew baat boobu kenn waxuma ko yabal nañ fi yoon ngir tuuma yu ma teg ñu dugg sama biir kër di 14 personnes ngir ay sëriñ yu ne ci dëkk bi naan nguur gi la àndal nan ko nan dem nan xool nu ngu nu nguñu ko dugg du kër ma ne ubbi leen sa bu kër ñu xool la ñu wax dara du ci dëgg ay fen la te ay kilifaa ne ci biir kilifa yooyu nag ñoo wàññi ku nekk ci opposant bi ci dëkk bi di weddi ndigalul sëriñ bi bàyyi faal yi li liñ fi bëgg a liggéey ñu ñu leen di impêche pour def ko parce que ay sëti sëñ Tuubaa ma leen di mettre en garde sama kër xaayara ban defee miti ah, beneen manifestation bi ñëw doon ba jege ko 300 mètres ma génn yor sama ñetti pistolet dama leen di wax ne sama kër képp ko fa jaar ñi may wax xam naa leen ñi ngi ci biir ñooy indi gone yi ni lakkee bi rek ku fa jaar sécurité réew mi comme que dafa menacé nit ñi nekk ci lii la neex sama kër ku fa jaar ba dóor la bal na leer nañ lii may wax baat bu du ma ko waxatu ndax sama njaboot ku leen fa fekk bëgg leen a toroxal bëgg a yàq sama alal ci la nga koy def du dëgg ay nit ay kilifa nekk sa gannaaw ma dóor bal maa ngi leen di nuyu di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. seen application Wanel TV agsi na ci Google Play mën ngeen ko télécharger léegi léegi